sëriñ tuuba seexul xaddiim ñu wax leen tuuti rek ci sababu tukki bi ginnaaw bu mu sancee dëkk bii di daaru salaam ci atum 1886 ñaari at ginnaw bi la sanc nag dëkkam bu sell bii di tuuba ci atum 1888 ab diir nag la fa def sànc nag quartier boobu di daarul xuddoos jàkka jooju fi nekk di jàkkay sëriñ mbàkke madina ji foofu la daa dugge lii di xalwa yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam feeñu na ko fa am na tukki bu sori te yàgg boo war a dem waaye nag am na ay gal gàllankoor yu ci nekk ku baax ki xaadim rasool mi ngi xamal yonent bi ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di ko wax ne de ruu ak bakk bakkan bi de laa munul dara waaye bis buñ ma ko sàmmalee lu yan bi diis diis wala mu metti jom ji moom ak kàttan gi àttan na ko ba tey ngeen gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam di xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne da am na gaay yu bari yu lu fi jiitu ci wàllu ay góor yàlla waaye lii nga wax de lañ waxoon waaye bi yan bi mettee ci seen kaw mujj nañ saalik seexul xaddim di wax ngeen gi mbindéef rek ba nëgëni daal roogi daal la munul dara waaye jom ji wax ja di ko wax ne nag ba tey itam am na baneen gàllankoor bu ci nekk ndax kat sa nijaay ji di sëriñ bu soobe bu su fieg mi ngi fi yan bi moom du mën a am ndax kat suñ boroom tabaaraka wa taala weg na ko te rus na ko te lépp lu ko ñaan dana ko ko may ñaareel bi nag mooy sa dëkk bu sell bii nga nekk itam di tuubaa fieg yaa ngi fi benn natt du la fi mën a dal ndax aar nga ko te yiir nga ko te suñu boroom kat du la fi teg mukk ab nattu loolu lépp nag tax na sëriñ tuubaa seexul xaddim génn ci dëkk bi di tuubaa dem ci jolof sanc fa dëkk bu ñuy wax mbàkke jolof mu nekk fa ci diirub lu tolloog ñeenti weer yi suñu boroom ci biir ñeenti weer yooyu nag mag ñu bari dégg nañ ne ma nga fa rawatina lii di tubaab bi tubaab bi nag yónni woon na ndaw ginnaaw bu mu yëgee ne ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim jóge na tuubaa mi ngi jolof ci wetu chef de bii di sàmba lawbe penda loola itam xawoon naa jaaxal tubaab bi lu waral loolu kii di maam abduloo la tubaab bi yónni woon ngir mu coytul ko sëriñ bi ba xam ci lan la nekk sëriñ tubaa seexul xaddim bi mu delloo ci lii di gouverneur bi xamal na ko ne kee ma fekk nee daal mbooloo mu bari wër ko ñii yor ay ngànnaay ñii toog di déglu lu dul ndigalam dalul sama xel te fekkoon na nag lu ko jiitu nag ci mois de avril ci atum 1889 administrateur des colonies yónnee woon na ay bataaxal ci njàmbur bawal ngir itam ñu mën a am ay renseignement ci lan la cheikh bi di def ci tund woowu ñu teg ci ñaari weer muy le juin 2009 lettre boobu bi ko tubaab bi laajee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mu nga leen di xamal ni moom gisutub lettre déggutub lettre waaye saa buñ bëggee mu tontu leen dana leen tontu tubaab bi nag wéy na nag di ñaw njort ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waaye ba nëga ni rek amagul lenn lu mën a tuumaal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ndax gisu ko muy doxalee ni sëriñ si ko jiitu doon doxale ba tey itam tubaab bi gisul Seexul Xaddiim di doxale ni buur yi daa doxale kon nag ba nëga ni itam ñaaw njort gi mi ngi ci ku baax barki sëriñ tuuba seexul xaddiim waaye daal xam na ne wuute naag ñim doon xeexal ciw doxaliin ñaaw njort gi mu ngi wéy di am ci tubaab bi digganteem ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ñu teg ci juróom benni at muy fukki fan ci mois de juillet ci atum 1895 administrateur bii di Leclerc yónni woon na ab leetre directeur de affaires politiques ci ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim bisub benn fan ci mois de juillet tombeeg muy bisub tamxarit directeur des affaires politiques na ñu bari wër ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi mu ñibbisee di wax la Leclerc mi ngi koy wax ni daal mbooloo ma ma fa fekk takk na lool waaye nag la ñuy wax daal ba nëgë ni mënumaa xam lii la wala laa bis bii nag fa la fekk Cheikh dul Faadal Mbàkke mi ñaareelu xalifa Xaadimu Rasuul bisub keroog maam Abdu Lo lañ yónni woon ngir mu xool si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim naka la nekke foofu ci Mbàkke Baari Jolof bisub keroog itam dafa tombe kii di Sàmba Lawbe ñëwoon fa murit yoo xam ne nii itam ñëwoon nañ fa doon ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim kon bisub keroog xumb na lool ci Mbàkke Baari Jolof bi maam Abduloo delluwaatee Ndar loolu la wax tubaab bi boole koog di ca dollil na ko nag gaa yi ma gis ñu wër ko ay ngandaay la yor nañ teewlu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu nett li ñu ko Jolof nag mu dem fa foofu yi am na la fa am képp yàllaate liggéey bu tubaab bi ñu jaxase ko ba ñu ngir si ko fa fekk na moom boobu loolu na siiw dem daal moom boobu moom la siiw li dem nga amul seen seen lu muy ja wax yi day jaxase kat rek di leen si moom tubaab bi ñoo ko jaxase wan ko ko kee doo leen yëmwaayam foofee ci si kaw la jëm si mais bëgg xeex ak yow rek moo tax nit ñi ko jëkkoon defoon fekk na moom dem rek dem rek la bëgg sama kanam la loolu lépp na maa ngi teew daal mu mu ca toog na fa ba am bis ku ñuy wax ma ab du ñëw fa fekk dig-dig boobu yi moo tax mu jikk teg déggu doole ji yóbbu yóbbu foofee ak mbooloo moom fa yóbbu waaye nag mu àddu nag boobu moo ñël benn séensi yi ci booba ci ko ci moom mu ne bon daal naa ko naa ko seeti wala ko seet ko ci ñëw wax ma lu fa ne dem dem dikk yàlla timis bu mu ñëwee séquence bi boobu mooy bul ba jolof bu ñu financé bi ma bu ci suba sambala bi bay koo ca jolof ànd ak jolof gépp ab xale xale la ñu loolu bari bari ak ci fas naa di góor ak lu ne lépp maa ngi jàll moom man ba mu dikkee Thierno Thierno sëñ Ibrahima Fatick mi moo amee ci daal muuti ma ne moo fa ne mooy mooy fi fi bi waaye sama doole li moo fi ñëw ma ne kon na na na tekki na tekki te ñëw nu nu waxtaan laaj ko nag boo xam ne lu yoonam ma ne ko dara dafa dikk rek fekk ma fi ma dikk di ko nuyu si rek di ko sargal ma ne sama gana yenn fa ñu ganale ko gan goo xam ne kenn su ko gis ci ngoon ci takk soni ko mu gont di dem rek man mii daan na wax man mii wax moom sëñ Maodo Fall ñang ma ñu ànd ak maa ko jëloon yëpp moom ñu dem àndal daanaka mu ëppalee waa am àndal sax ci bari ci tegu saa yi su da ñëw fanaan si sëñ bi ñëw moom dara ko moom dal bu mel ni bu mu dara woon kale moom bu mu kon moom moom lu ngi si ko démagut sëñ bi yéen sama maam jooju mu dem waaye dina daal xëyee nag di dellu la xalaw moom lay wax yi bu demee bi mu demee ba la ko rendre compte di ko wax mbooloo mu bari maag jataay baag ñam fa fekk ndax bu leen fàtte ne ñi àndoon nag Sàmba Lawbe kat ay ngànnaay lañ yoroon te moom dafa jortoon ne ñooñu itim armeb sëriñ bi la kon nag tubaab bi wéy di gën a ñaaw njort baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ndax kat ñi mu yónni woon bi mu ñëwee liñ ko wax wax dalalul dara xelam kon tubaab bi na convoqué na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waaye wuy siwut maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la yónni woon ca booba mu demal sëriñ bi ngir tontul ko boole ko nag maam abduloo di wéy di def ay pexeem ngir ñu jàpp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak kii di sàmba lawbe lan moo tax nag mu bëgg ñu jàpp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba nëgë ni kenn xamul lan la waaye rek saa su ne mi ngi ci ay pexe ngir ñu teg loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim lawbe moomu gane si woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jiite itim tund wow di jolof ab tampon yàqu woon mu yóbbu woon ko ci dëkk boobu di ndar géej doon ko defarlu maam abduloo demoon na keroog fi ñu doon defare lii di tampon yi fekk na fa tampon yu baree bari yu yàqu waaye lépp rek bu leen fàtte ne daal mi ci pexe yi ñu teg loxo sëriñ bi lan moo tax nag ba nëga ni ump na ku ne keroog bi mu eggee foofu bay wër tampon yi di laaj bañ na ko bii sàmba lawbe moo ko jotee mu ko doon defarlu ngir ñu defaraatal ko ko maam abduloo defoon na aw këyit ci poosam këyit woowee nag jël na ko fexe na daal ba dóor ca lii di tampon ba mu marqué ca mu fab def ci poosam toog di waxtaan ba ñibbi jotee mu ñibbi keroog bi mu ñibbee la bindub lettre di wax gouverneur général bi man Samba Lawbe jiite tund wi di jolof ak man sëriñ bu mag bii di ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moytuñu ñu ngi ci say tànk te danañ dal ci sa kaw am na waaye ñun nag duñu ñooñu na nga xam ne daal saa su ne ñu ngi ci say tànk te danañ dal ci sa kaw loola la maam Abdoulou bindoon ca lettre ba adressé ko ki nga xam ne nii moom mooy gouverneur général ngir wax ne Samba Lawbe ak ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ñoo ko bind lettre boobee nag mu jural ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim demu Gabon gi ñu teewlu Cheikh dul faadal ba tey mu nekk li ñu naka la maam Abdoulou def ba bindub lettre ci ci lettre mu yóbbu ko ndax di ko defar waaw waaw maa bi wax na bari ko foofee yi ko defaree seen samp yu bari ne fa ma ne waaw bii ana ko moom bii waaye ana ko moom ana ko moom bii waa ngi si bopp sàmm raw bi ne ko bi bi sàmm raw bi borom boo yore moo ko doon la waaw ne ma gis waaye ndax pare mu ne ko waaw pare na su kay kayit ngi fi yu bari fab ko def ko nii teg ko ci kayit wu sànni si kayit rek mel ne mu ci soxla mu dem rek mu fexe ba da koy boole da koy boole ba ci suba ba ci suba sax daal bind benn leetar daal di wax ne Bamba yow borom ndar defaroo ñu ngi ñu ngi ñëw ci yow sama mag waxoon na la lu mel nii waaye su ko ne moom boobu dafa bëgg a ko waxee ne ko bi nangam ci ci jàkka yang-yang ja fekk mat na ab biir bu sori daal defaru daal di rëy nagam daal koy seet ay seel daal di warlu ay ay baraay yu jeex lu ne ak ak sanqal sak yenn xëy dem rek bis ba nga xamee ne bu ma wax woon nga ne ko bu dikkee naa naa la nangam wax wax ji ñanga-ñang bis boobee fekk na na ba yekk kon loolu itam xëy rek ndax di jik di jik ko fa dem dem yëpp man sama de man du ma kooku man man li ma wax moom man moom maay dikk maag sëñ ba man na ñëw ci yow teewul waaw woon man nag wóor na wóor na noo ngi ñëw maa ma du bind lii ak signé def ko ci am xam nga Samsung Samsung kon nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di gën di am ay jafe-jafe digganteem ak tubaab bi ndax kat tubaab bi jotoon na renseignement bu koy wax ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim foofu mu nekk ci Jolof mbooloo mu bari ñu ngi koy wër saa su ne yor nañ lii di ngànnaay boole koog nag lettre bi nga xam ne nii jot na ko mu gën a garaawal situation bi ndax lettre bi maam Abdoulaye ma ngi koy wax ne yow tubaab bi moytuñu man Sàmba Lawbere maag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim saa su ne bay boo nga jor ne ñu ngi ci sa kaw loolee nag taxoon na tubaab bi wutut ba yandoor waaye itam nag fitam dalul ndax dégg na doole ju ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim am foofu ci Jolof mu xëy suba woolu kii di maam Abdullo mi nga xam ne ni saa su ne bu lettre ñëwee moom moo koy jàng mu di ko xamal ne jot naa ay lettre yu takkoo takku maam Abdullo comme moo bind lettre ba moom moo koy jàng fa mu jaar ba bind ko rek fa lay jaar ba nettali ko di ko xamal ne lettre bii dee sëriñ Tuubaa ak kii di Sàmba Lawbe ñoom ñoo la ko bind ñi ngi lay yow ci sa kaw walla ñu gont dal ci sa kaw loole nag bi ko tubaab bi déggee aw fitam dala ñu teew lu mamadul faadal mu nett li ñu keroog bi maam abduloo waree jàng lettre bi nga xam ne ni moom moo ko bind ci teewaayu gouverneur bi lan la wax gouverneur bi keroog bu ñu andee courrier ba fekk ci lettre ko ko dal li bi yaa ko war a jàng ki ma ko bindoon mu jaar fu mu jaaroon rek ndar man sàmbalaw bi mag sëñ Bamba ak Jolof yëpp defaru dikkaloo yi sa kaw li loo ci xam na ah xam ci dara mi ngi rek leen li xam jàpp jàppi ko rek jàppi ko rek fekk leen bala ñoo ñëw jàpp jàpp jàpp leen rek laa ci xam nga xam ne moom moom fa moom laa fi mu fekk ma fa nag kooku de mu ñu njëkki rek ma sëñ bi rek quoi ah, kooku ni ñu waxee kattan bari rek ni mel def ngeen ko mën a ma ne mën naa ko li ma booleeg espagnol si ko mën a wax na ko ay si te dafa ay espèces espèces yu bari jiraaf njaambur ak wala wala xeef yi foofu yëpp mu dikk ñu bi laaj na maam Abdoulou lettre bii mu jàng lu ci pexe maam Abdoulou di ko xamal ne man de boo ma booleeg armée bi man na maa dem jëli ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim wala menn man mi dong mën naa ko jëli tubaab bi di ko xamal ne ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim dégg naa ne bari na doole de maam Abdoulou di ko wax ne loolu daal du ci dara man daal boo ma booleeg armée bi mën naa koo jëli tubaab bi noonee ko maam abduloo waxe ni la ko defee boole koog lii di armée bi ngir ñu dem jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim biñ ñëwee nag ba ci dëkk boobu di la maam abduloo wax armée bi ñu toog foofu xaar ko fi mu dem mbàkke baari jolof jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu ngi leen di wax ne benn sàndarma rek doy na ngir mu ànd ak moom jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñi ci des nag nañ toog foofu ci jéewul xaar ko fi keroog sax sàndarma ba maam abduloo ma ngi koy wax ne bul sol tëni solal yérey olof ndax nga yiw garde boobu di gendarme bi biñ egsee ci mbàkke baari jolof bisub keroog itam fa la fekk kii di cheikh mamadul faadal mbàkke ba tey nañ ko teewlu mu wax ñu bi maam abduloo ñëwee ba sëriñ tubaa seexul xaddim xam lan moo nekk tànki maam abduloo lam wax maam ceerno ibrahima faati ànd ak benn sangal ma sol sol yére yére wolof ànd ak moom sama kanam mi ngi fanaan si weesu ab a la ñu fanaan si guddi ay juma la ci suuf sëñ Cerno Cerno na sëñ bi waa ji moo moo ñëwal si moo ab du dégg si na ne ko waa ku mu dikk ne ko ne ko man de li ma yónni dañu ma dañu ma lee woloo de ku mu gëmewu ko ne ko ayca daal di defaru ci bëccëg boobee ci ci gu ajjuma bi dafa dajale wax ne mi bëgg yu bari yëpp maa ngi maa ngi taxaw nag ko def jënt bés ba ci alximis joojee mu ko ko waxee ba sedd ajjuma sëriñ tuuba seexul xaddim wax ko kii di maam ceerno ibrahima faati di ko xamal ne maam abduloo mi kat nee na tubaab bi dama soxla kon nañ ma defaral samay bagage ndax damay wuy ji ñu yendoo ko defaral ay bagaasam bëccëgug ajjuma ba seddi samedi ci fajar sëriñ tuuba seexul xaddim waree fa aw fasam ngir dem ñu teewlu cheikh dul faadal mbàkke mu netti li ñu samedi fukki fan ci mois d'août ci atum 1895 fajarug wax googee mu seexu seexul xaddim jógee mbàkke baari jolof leen wax sax la leen teel ñu daal dox yu sew sew nii te ñu bëgg ni ci jàkka ja takkal nañ ko fa suñu wal ba noppi mu woo ma ma maag sëñ Modou Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci di gone ko ci penc ma am na foofu garab goo xam ne sax garab la gudd gudd dañ ko gor léegi waaw wan nañ ñu foofu lañ taxawal boobu fa fa taxawal fa lañ taxawal fas fa ci ko di war dénk naa leen yàlla maa dem. dénk naa leen yàlla maa ngi dem. fan la seexul xaddiim jëm. ndar géej. wuy jit lii di tubaab bi ci convocation bu ko amal. yoon wa nag nii la tëddee. ginnaaw six heures du matin mu jóge Mbàkke Baari Jolof quatorze heures di waxtu tisbaar mi ngi ko fekk ci dëkk bu ñuy wax jéewul maam Abdoulaye bi mu àndeek ñi doon jël si Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ba ci dëkk boobu di jéewul foofu la waxoon ne nañ ko bàyyeeg benn sàndarma mu ànd ak moom muy xamal sàndarma ba da sol lii di yére yi wolof teñ dem jël li ku baax ki wax armée bi itam nañ toog xaar ko foofu kon 14 heures ci le 10 def samedi foofu la seexul xaddiim dajee gaañooñu ba ci gug 10 août googu mu yendoo ci dëkk boobu nag di jeewal jeewal googu nag bisub kero nag ba fa sëriñ tubaa seexul xaddiim nag di egsi dafa tombeek nag mu tolloog waxtu tisbaar soo delloo nag ci mbindum cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul ci sukkandiku nag bu mu sukkandiku ci nett lépp sëriñ ma bànji njaay bokkoon itam nag ci ndaw yi nga ne nii bisub keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddiim itim di bàyyikoo ci dëkk boobu nag di Mbàkke Baari Jolofa bokkoon na itim nag ci ñi nga xam ne ni àndoon nañoo ko baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ngir nag ñu yorle ko ay bagaasam ci woo nag gu ko tubaab bi woo sëriñ ma Banji Njaay nag mi ngi wax nag ci mbindum Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke di wax na nag bisub keroog mar wu méttee métti itim nag sonal na leen ci waxtu tiswaar woowu nag bi Seexul Xaadim nag bëggee jàpp dañoo séen nag lu ñuul lu gàtt nag jóge nag ci penku bi nag wut si leen ginnaaw bu mu ñëwee nag ba egsi ci ñoom la defal Seexul Xaadim nag mu jàpp nag ba noppi ginnaaw bu Seexul Xaadim jàppee la leen may ñoom itam nag ñu naan ndox mam yoroon nag mi ngi ko def nag ci lu mel na ak mbuus te bi mu ñëwee nag waxut ak ñoom bi ñu noppee la leen wanaat ginnaaw nag di dem bisub kerew nag lii xew na foofu seexul xadim nag wéy des nag ci dëkk boobu nag di jeewal jeewal googu itam nag la fanaan guddi gaaw googu fukki fan ci mois de août ci atum 1895 fajorug dimanche fukki fan ak benn ci mois de août ci atum 1895 sëriñ tubaa seexul xadim jóge jéewul ànd ak lii di armée bi ko doon jël si ñu fas yéenee dem nag lii bii di ndar géej a jaari luga kokki lañu teere ji kokki googu ña ngi fa egg itam lii di waxtu tisbaar waaye dañoo bëggoon a fanaan kokki doog a xëy dem biñ egsee kokki nag ni leen waa kokki teeroo dalul lii di xelum tubaab bi ñu xam ne daal kaso du kanam waaye koo ko tëjal mu xam ko boole koog ndox min doon ñaan ngir wëgg seeni fas itam waa kokki dañ leen a tànxamlu ñu xam ne fii daal du yendukaay du fanaanukaay te lu ko mooy itam mën nañoo dal ci kaw dimanche googu dañoo fanaanee dox ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba ci fajarug altene gi ndax seexul xaddiim wax na ci jasaawu sàkkóor di wax ne fajarug altene la egsi ci gaar bu lugaloo ndax fajar googu nag foofu sax lu ko jullee ba sedd altene fukki fan ñaar ci mois de août ci atum 1895 tubaab bi nekk ci gaar bu lugaloo di xaar nag saxaar gi mu war a jóge ndakaaru pour ñëw yóbbu leen ndar géej foofu lañ yendal ku baax ki sëriñ tubaa seexul Khadim ci gaar bu Louga ba ay cinq heures bi maanaam di sept saxaar gi ñëw waaye keroog mbooloo mu bari fekk nañ sëriñ Touba Seexul Khadim foofu ci Louga loo ngir bëggoon a ànd moom dem ndar géej tubaab bi nag def na ay pexe ba ñooñu demuñu ndax da leen doon wax ni yéen ak sëriñ bi du ngeen mën a bokk wago wu ngeen dugg yéen dangeen di dem ci wago yu féete ginnaaw ngeen dugg ci saxaar gi yóbbaale leen sëriñ bi ñu dugal ko ci wago wi ci kanam naka te tubaab bi bu gaa yi duggee ci wago wi ci ginnaaw moom wago yu muy yóbbu ñoom ñoo ñu bëggoon a ànd ak sëriñ bi dem ndar du leen yóbbaale kon noonu la tubaab bi def ba ba fa gaaya bëggoon a ànd ak sëriñ bi kon sëriñ bi mi ngi egg ndar altine 12 août 1895 ci bi 18 heures jàpp 19 heures jotee ndax foofu kat lu jullee lii di timis timis googu mu egg si ndar di fukki fan ak ñaar ci mois d'août ci atum 1895 ginnaaw nag bu ko tubaab bi gisee ba xam ne daal ki ñu doon jëli lu jëli nañ ko ba indi ko tubaab bi joxoon na ko benn liste yi ñii daal ay kilifa lañ yu nekk dëkk bii di ndar ñii ñu la jox seen tur nag ku la ci neex mën nga caa dal seexul xaddiim jël naar bu ñuy wax Mohammed Xorey Seen ab naar la woon ab interprète la woon kër googu la seexul xaddiim nekkoon waaye nag dem na ba mujj gi daal lii di xelum tubaab yi dalul ci diggante kër googu ak seexul xaddiim ndax saa su ne murid yi dañ fay gën di bari boole kook nag di sikkar te tubaab bi jortoon na ne daal lii bu yàggee mën naa jur leneen kat njàng mi da leen di fat kër Ahmed Khuree Sène bii nag mi ngi ci quartier bu ñuy wax soor ci ndar géej foofu seexul xaddim nekkoon ci quartier boobu di soor léegi ab ekool la kon école élémentaire xayaar mbeng la jamono ji kii ñuy wax Ahmed Khuree si nag Sëriñ Tuubaa seexul xaddim fekkante wut ak moom jamono waaye nag ci diir boobu mu def ndar demoon na ca pakam ba ngir barkeelu ca barkeb jëmm jooju waaye kër Ahmed Khuree Sène la daloon bokkut ak Ahmed Khuree xaadim di dem ndar ba tey yóbbuwaat nañ ko faneen ci quartier boobu di soor fiñ ko yóbbuwaatoon ngir mu nekk fa nag am na ñu wax ne lenn ci kilifay colon yi ñoo fa dëkkoon am ñu ne déedéet foofu kay général Leclerc moom moo fa dëkkoon ci kër googu ñu ko yóbbuwaatoon ci soor waaye foofa nag ci benn magasin lañ ko daa tëj moom seexul xaadim jabaru ka nekkoon ci kër googu am médecin la woon seetlu woon na ne daal tëj gi ñuy tëj seexul xaadim moom lu ko metti la waxoon nag kii débordé doomu aadama bii ñu jàpp fii di ko tëj baaxul ci moom ndax deret ji du circuler deret ji nag dafa war di dox kon nañ ko tijji foofee ñu tëjoon seexul xadim di magasin mooy laboratoire bi gën a rëy ci ndar tey denc lii di deret ndax deret ja docteur ba tuddoon di jabaru commandant ba foofee mu ko tudde woon banque de sant bi gën a rëy ci ndar géej foofu la nekk moom mooy bërëb ba sax bàyyu seex saaliwu du moroom foofu itim daana def saa bu xëyee ñu bako mu dem julli ëppoon lim daa toog ci ndar géej mooy foofu banque boobu nekk di SGBS ci ndar géej am na jàkk ju fa nekk ju ñuy wax jàkkay seng foofu sax la bind xasida gii di asiiru bërëbu ziyaar la bënn nëga ni ci ndar géej ndax xaadimkat daana fa toog lu yàgg bu ñibbisee nag bu guddi jotee ñu dencaat ko ci magasin bi ci ndar googu itam la gisee woon na ku ñuy wax maa béy njaay mooy bi muy bind asiiru di ko wax ne danaa tukki dana ñibbisi foofu itam ci ndar géej lañ ko boole woon ak gaynde ga kon seexul xaddim ci lool nag la sax ba le 4 septembre ci guddi ñu yóbbu ko ci benn camp militaire bu nekk ci quartier bi ñuy wax Roña Nord bi asamaan setee nag di la 5 septembre nag lañ ko indi ci gouvernance bu ndar géej ngir fas yéene ko àttee ci conseil privé boobu alxemis di le 5 septembre 1895 ci bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba ci benn salle boo xam ne nii salle fermée la àtte bi ñi koy fekkee dañ leen di segg liñ koy toppee nag mooy ku nar a daaneel ndax lettre maam Abdou Lo bi moom rek moo ko indi ndar géej mook Samba Lawbe Penda mi wax ne daal buur fagarul danañ daani la sa nguur wala ñu ngi ci sa kaw kon bu doon jamono jii ñu ne article 80 moo dal ci kaw te article boobu jamono jii kum dal ci sa kaw du yomb lu jiitu le 5 septembre 1895 tubaab bi doon na wéy nag di bind ay lettre ndax ñim séqal projet Serigne Touba Seexul Xaddim bi da leen di rendre compte moo tax saa su ne ci diirub le 12 août biñ tegee loxo Serigne Touba Seexul xadim ba le 5 septembre saa su ne tubaab bi daana rendre compte lu xew ñun ko séqal bisub le 15 août ci atum 1895 gouverneur bi bindoon na lettre ci ndaw yi ko toogal ci bawal njàmbur ak lii di Louga ci pexe yiñ tëraloon ci benn fan ci mois de août ci atum 1895 ba juróom-ñeenti fan ci mois de août ci atum 1895 mooy ngir ñu teg loxo ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim pexe mooma sotti na ba tey ci le 29 août 1895 tubaab baa ngi gën di dëgg dëggal ci renseignement yim yónni woon ci bawal njàmbur ak lii di jolo fa pexe biñ tëraloon ngir ñu teg loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba tey daal am na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim léegi mi ngi ci seeni loxo le 5 septembre 1895 di bisub alxemis nag la conseil privé bi amal benn ndaje ngir àtte nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim procès verbal bi boo demee archive bu France fekk ko fa section FOM Sénégal numéro 127 bisub alxemis boobu di ci mois de septembre ci atum 1895 ci bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba gi ci bureau gouverneur boobu wala ci gouvernance bu ndar géej lañ àttee nag ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim bisub keroog ñii ñoo fekkee àtte ba wala ci teewaayu kilifa yii la ku ñuy wax monsieur Mouté moom moo nekkoon gouverneur di président ndaje ba ndax boobakat gouverneur bi fi nekkoon dañ ko doon doog a remplacer te moom mii mooy ki ko wuutu woon ñaareelu kilifa gu fekke lii di Guèye moom moo nekkoon commissaire des colonies chef du service administratif ñetteelu doomu aadama bu fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax boye moom lieutenant colonel la woon di commandant supérieur de troupes par intérim ñeenteelu doomu aadama bi mooy ku ñu doon wax jorket directeur de l'intérieur la woon par intérim juróomeelu nit ku fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax clerc médecin principal la woon chef du service de santé juróom benneelu doomu aadama bu fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax orgaret lieutenant de vaisseau ministère de la marine juróom-ñaareelu doomu aadama bu fekkee atte ba keroog bisub alxamis la 5 septembre ci atum 1895 ci conseil privé biñ amaloon ngir atte ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mooy monsieur Béchiat conseil privé tutélaire juróom-ñetteelu doomu aadama bu fekkee atte ba mooy ku ñuy wax monsieur Lumben conseil privé suppléant la woon superville secrétariat architif kon juróom-ñetti tubaab yi ñoo fekkee atte bi ak seeni garde ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Moodu Sekk benn maxtaar mi nekkoon entre prêtre bi bu tubaab bi laajee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim du sekk benn maxtaar wax ko ci wolof bu seexul xaddiim tontoo du du sekk benn maxtaar waxaat ko ci tubaab bisub keroog àtte ba lii moo ci tukkee bi ñu noppee membre yi séqoon àtte ba itam bisub keroog kenn ku ne siñee nga ne lii tukkee ci àtte bi ànd nañ ci waaye nag pexe bi mooy dañuy jël sëriñ tubaa seexul xaddiim yóbbu ko ci réew mii di Gabon ci bisub nag le 21 septembre lay jóge Sénégal jóge fii ci ndar yóbbu ko ndakaaru mu doog a mën a dem foofu di gabon bu dee dem nag ci lii di ak gaal lañ koy jaarale diirub li muy nekk gabon nag weer wu jot danañ ko fay fukki dërëm ngir mu mën ci dund procès verbal bi nag moo nekkoon N1 délibération bi moo nekkoon enn 16 soo demee archive nationale lii ma la wax danga ko fa fekk atte bi bi mu jeexee ci bëccëgug le 5 septembre Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñi ngi ko fanaanal nag ci guddik 5 septembre ci benn cellule bu nekk ci gouvernance ba nëga ni sax murit yaa ngi koy ziyaare nekk na fa nag ab diir ci biir cellule boobu ndax kat léegi mi ngi ci kaso bi ñu denc mujj gi nag jëlee nañ ko foofu ci gouvernance bu ndar gi yóbbu ko nag fi ñuy wax toolu buur toolu buur nag mi ngi ci quartier bii di soor tool bi li ko waraloon mooy nguuruk Afrique occidentale ñoo daa def bépp gàncax goo xam ne nii daal tubaab bi gis na ko te jor ne buñ ko bayee mu amal njariñ lii di àdduna bi wala lii di Afrique foofu ci toolu buur lañ ko daa essayé muy fi lañ ko mel nag ñu doog koo tasaare ci askan wi foofu fa ngir itim di liggéey foofu sax lañ ko boole woon ak lii di gaynde gi tool boobu mu ngi ci quartier boobu di soor kon foofu la nekk ba le 18 septembre 1895 ñu doog ko faa jëlee nag yóbbuwaat ko ndakaaru ngir mu am fa ñetti fan ndax la 21 kat la projet bi waxoon ne ci la seexul mu war a jóge nag lépp luy territoire Sénégal kon ndakaaru dong nag la mën a jaare ndax foofu kat la bato yi nekk ginnaaw bu mu eggee ndakaaru ci guddi guddig le 18 septembre ci atum 1895 ñetti fan la fa def guddeem gu njëkk nag ci prison bi lañ ko denc te ñaareelu fat ba nag la ku ñuy wax sëriñ Matar Binta Guèye ab lébu la woon ab jaraaf la woon moo jiite woon tim bi ñu tudde Sidem ci Ndakaaru kër gi jàkkaarloo kër sëriñ bi muy fiñ tudde di foncé kër gi ko féete soowu foofu la dëkkoon moo sàkku ci tubaab bi ngir ñu jox ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mu yor ko ba keroog tubaab bi di ko génne lii réew mi tubaab nekk ñaari fan yi ci des ba le 21 septembre ci atum 1895 ginnaaw buñ jullee tisbaar ba noppi la ko tubaab bi jël si nag fa seeni ko dugal ci gaal gi ngir yóbbu ko nag ci réew mi di Gabon Seexul Xadim nekk na Gabon ba le 20 septembre ci atum 1902 mu doog faa bàyyikoo ci beneen batoom napp egsi nag ci waaxu ndakaaru yi ci bisub 11 novembre ci atum 1902 doomu soxna jaaratullaahi bi yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ci barkeem te dimbali nag lii di réew mi ci barkeem amiin ci barkeem amiin ci barkeem amiin ci barkeem